buur ne wa yaxluqu dana mu bind moom yàlla maa laa taalamuuna la ngeen xamut min asiyaay ci ay mbir alaajiba yu yemu alxariba yu tumuranke ne yàlla tudd na waruwaay yi amoon ci jamono jooju ne dana bind lu ngeen xamut yeneen waruwaay yu gën a yéeme lu ngeen xamut seetlu leen nag laa dana jàngal borom xel yàlla waruwaay yi nga xam ne nii saxaaba yi xamuñ ko woon koon si jamono jooju moo gën a yéeme fuuf ya feeñoon si jamono jooju dana yéene yëpp njëriñ de waruwaay yi nga xamut gannaaw ko yàlla bind na ay oto bind na ay vélo bind na ay bato yu rafet yoo xam ne yu xees la amu woon ci yu njëkk ya naka noonu yàlla bind ne avion de loolu moo gën a yem yuy naaw ci kaw jaww ji loolu tudd ko woon ndax amul woon kon yi nga xam ne xewagut yàlla daf koy junju waaye du ko rek laa wax de ndax amul woon alquran tudd na loo xam ne ñun ñoo ko gën a xam saxaba yi ndax ñoo ko fekkee rek laa wax de waaw te ñoom la wàccoon loolu dana la jàngal ne xam-xam léegi-léegi ñu mujj ñi mu gën a leer seen bopp ci ñu njëkk ñi saxaaba yi la leen yàlla wax gannaaw mu leen tuddalee xéwal yi mu leen defal muy war waaye dégg nga daf na leen yàlla dana bind lu ngeen xamul gannaaw ga moo avion indi oto rek laa wax de waaw indi waruwaay yu yéeme bis bu nekk rek jamono ju nekk rek gis waruwaay yu bees di gën a ñëw oto yi toujours rek dañuy gën a yéeme di gën a rafet di gën a taaru de yàlla ne danaa leen bind lu ngeen xamut mooy yi ngeen gis nii kon yooyu ci xewal yi la bokk xewal yi ngeen di loo xewal yi leen yóbbul seen bagage yi di leen noppal ci coono bu bari yàlla mi leen defal war a waay yooyu na ngeen ko sant rek laa wax te jaamu ko waaye nga déggee ci ne xewal yi yàlla feeñal woon ci jamono saxaaba yi moom yooyu mën nga cee lekk man cee xewalu waaye oto yi kenn du ko lekk de kon yéen am na njariñ yi amut waaye yi lay gën a yéeme ñoo gën a taaru de yàlla tudd na la waruwaayu zahiri muy fas yi bërkël yi ak mbaam yi ak gëlëm yi de ñoom ñooy waruwaay yi ngay war jëm ci bare bi àddina yi ba pare ne ngeen xamut loolu juñ na la ne la waruwaayu baatini ci jamono jooju mooy saxaaba yi de ñooñu doon man nit ñi di leen jëmee ci barabi lan barabi yàlla yi ci pay yàlla dañ leen jëmee ñoom war waay zahir boo ko boo ko waree ci barabi zahir la lay jëmee mooy barabi àdduna yi de war waay baatin nag mooy wëli yàlla yi ak borom xam-xam yi fu mu lay yóbbee mooy barabi baatin ya mooy pay yàlla ba jamono jooju nag war waay baatin yi moo doon saxaaba yi ñu doon wax man nit ñi jëmee leen ci béeb yàlla ba waaye yàlla ne dinaa dindi lu ngeen xamut dinaa feeñal yeneen waliyu yoo xam ne xamu leen leen ñooñu bu ñëwee ma ni oto yi ak avion yi gën a yéeme mu gën a gaaw lool ñooñu seen yoon mën naa gën a gaaw mën naa gën a yéeme rek laa wax yàlla juñu ne la loolu moo tax gannaaw yàlla andi nañu waliyu yu gën a yéeme lool mbir ma gën a taaru mu gën a gaaw xommat jëm xommat la jëmeeli ci yàlla gën a yomb lool wa yaxluqu maa laa ta'lamuun a ñaari war waay yëpp waxi noppi la war waay zaahiri bu njëkkoon xam na njariñ lool waaye yu mujj yaa gën a yéeme de waaw ci xommat gën lay xommat jëmeele ci yàlla ci nu gën a gaawee gisu leen ne saxaaba yi ñooy ponkali borom xam yi waaye mazaay bi moom ñi ko moom kenn du ci saxaaba de ñoo ñoo ñu mujj fànn boo demit loolu rek ngay gis ñela faram fàcceel xam-xam leeralal la ko ba nga dégg fekk kenn du ci saxaaba rek laa wax de loolu mooy wa yaxluqu yàlla dana feeñal maa laa ta'lamuuna war a wala li de ñu xamal leen jëmee leen ci pee yàlla bi xamal gi gën a gaaw naka noonu it waaw jege yàlla xam yàlla ñu njëkk kenn du ñoom ndax ñoo jëkk gënoon a jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu mujj ñi ñoo gën a yéeme de ñaari war waay yooyu rek am nag war waay yi ngeen jëmee ci àdduna ak war waay yi ngeen jëmee ci pee yàlla bu <coughs> njëkkoon. ñaar yëpp xamoon nañ yàlla nee na ngeen ko sante yàlla nee na wa yaxluqu dana mu bind maa la taala mooy lu ngeen xamut de dégg nga muy war waay yu bees yu xarale yu xéeme yi jamono ju nekk rek muy gën a xéeme di gën a taaru de naka noonu lii jamono ju nekk yi gën a xéeme di gën a taaru waaw jombat nit ñi jëmee leen ci bee yàlla de allahu yàlla tabaraka ba ni wa taala kawe na yaxluqu dana mu bind maa laa taala mooy lu ngeen xamut സക്രത്തുന്നാൾ ഖൈറഫസ് ഓ സക്രത്തുന്നാൾ ബിഹാലം ബർക്കല്ല് ഓ സക്രത്തുന്നാൾ ഹമീരമ്പാം ഓ ഇനിയോ മലാക്കി വയവറവാരൻ waaye xam nga ne tey kuñ may fas la oto nga jël oto ba kon yàlla bind na lu ngeen xamut de waaye feeñu woon ci jamono jooju jamono jooju mooy jamono yi gën ci jamono yi waaye war waaye yi gën a yéeme feeñut fa naka noonu wolli yooyu ñoo gën ci wolli waaye ña gën a taaru gannaaw ko lañ feeñ de wa zakka tudd na andoo ne moom yaxluqu dana mu bind maa laa taala mooy lu ngeen xamut fi haada lu ngeen xamut lii tadduxul lay dugg asufunu gaal fil bahri ci géej gi mooy bato yi wal barra ak jéeri ji mooy oto yi wala muy avion de kullu haada lii lépp daaxiloo ji dugg la fi xawli yi ci wax yàlla boo yaxluqu dana mu bind moom yàlla maa laa ta'lamuuna la xamut yéenay gën a màgg gaa waaye yéenay gën a xéeme yéenay ba yàlla bind loxol boppam la ko bindee yii ba yàlla bind ci loxol mi def la ko jaarale de naka ñoo gën a màgg gaa waaye yéenay gën a xéeme maa farat naa bàyyi wuñ fil kitaabi ci alquran min shay'in ci dara li ñëwul sax yàlla tudd ko mu leer ndax ñëwagut waaye jiñ na ko waaye ko dana mu bind maa laa la ngeen xamut waaw ay war waay ngeen gis war yi gën yi feeñoon jamono bay alquran di wàcc ñun ñu gën koo dégg ndax ñoo dund ak moom de waaw ñeneen ñuy mujj ñëwit ñoo ñuy gën a dégg laay ji ndax danañ gis yeneen yu xees ñun ñu gisul woon waaw naka noonu mu bind waaw ay wëlli yu leen yi ngeen war mu yegg leen ci péeb yàlla ba maa laa taala la ngeen xamut ci ay wëlli wa yaxluqu dana mu bind maa laa taala la ngeen xamut ci ay wëlli de li haadaali moo tax an rasul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam istakfa taxaw naa leen xilaafati ci kuutal boo gisee yonent bi sampul kenn muy xalifaam ndax dafa xam ne am na ci jaam yoo xam ne ci jaamam yàlla dana leen feeñal si xeet bi lañ bokk ñooñu kenn attanu leen de moo tax yonentu wutul xalifa daf na yàllaay sama xalif ndax am na jaam yoo xam ne ci yàlla rek la ñuy xam-xam jëlee wuñ ko ci téere de lam yastaxlifu wutulut aadan kenn laa ummati ci xeetam inda wafaati jamono bu muy faatu lu tax laa noon a moom alima xam na ne am na fi ummati na am na ci xeetami man ka nga xam ne yaa xus dana jëlal alma xam-xam mi ne laay mu ci yàlla bilaa waas tëri ci dudu digre foo dee boo gis rek ko jàngal seen xam-xam ñi ngi ko jëlee ci téere bu dee xam-xam boobu nag mënoo koo am te jaaroo ci borom xam-xam mu jàngal la ko de bu dul loolu rek nga dem musiba waaw xam-xam kenn du ko jëlee ci téere ndax téere dafay yàq de foo nga jëlee ko ci làmmiñu borom xam-xam mu jàngal la de waaw ba nga waaye am na xam-xam yoo xam ne wala am na jaam yoo xam ne seen xam-xam ci yàlla lañ ko jëlee direct rek la wax de bokk na ci xadr bu leen ko weddi xadr wala yàlla la lu yàlla wax wax lam naaw xamal lañ ko min la dun naa ñun mel man ab xam-xam rek laa wax de kooku yàllaa ko xamal de kon ndeke dana am jaam yoo xam ne yàllaa leen xamal alquran saxal la ko waxaat na it ne wattaqullaa ragal leen yàlla ku ci kenn wa yàlla ma kum kon dana mu xamal leen allahu yàlla de su ngeen la ragalee yàlla yàlla xamal leen la leen yàlla xamal loo ci génnee dëgër fit wala boog bu ne daal boo ne wooyu allimukum dana mu xamal leen allahu yàlla la yàlla di xam ne daal lépp ngi ci biir tënkuñ ko fenn kon am na jaam yoo xam ne ci yàlla la ñuy jëlee xam-xam bu doon nag nit mooy xalifa bi dafa mel ni lépp lu ñu waroon lu ñu doon jëlee ci yonent bi ci kooku dañ koy jëlee léegi waaw te am na jaam yoo xam ne paas nañ foofu fa yonent yi di jëlee rek la ñuy jëlee moo tax yonent bi fa laa daale moo tax xaala yonent ne allahu yàlla xalifati yi mooy sama kuutal ala kulli muslimin ci bépp julit de fal waliyu waliyu yatalaqaa dana jëlee alay ma xam-xam mi ne laay ci yàlla tabaraka ba ne wa taala kawe na bilaa waasitatin ci dudu diggale de kama talaqaaw comme nu ngi ko jëlee almalaku malaaka wa alladi bi nga xam ne unzila wàcc nañ ko ala rasuli ci yonent bi wa kama talaqaaw comme nu ngi ko jëlee a rasulu yonent bi de ni malaaka yi jëlee xam-xam ci yonent ba ci yàlla wàcce ko ci yonent bi ni yonent yi jëlee xam-xam ci péeb yàlla ba léegi-léegi ñu jële ko ci malaaka ya noonu la wali yu jëlee xam-xam ci yàlla direct léegi-léegi wali yu jëlee xam-xam ci malaaka ba de moom lañ jàngoon démb ne na jaam yoo xam ne wax de suna lañ yonentoo ko wax malaaka bi dafay wax ak ñoom seeni xol kooku mooy seen waxyu de ilham lañ koy tuddee waaye duñ ko tuddee waxyu mooy la yàlla de fa defaloon xaddir yàlla wax na moom xamal ko xale bi mu gis nii fan lay mujj sant ko mu ray ko te te yonent bi jamono ma nga ànd moom waxu ko dara de xam-xam boobu sax yonent bi amaana yëgu ko woon mooy yonent yàlla Muusa ci péeb yàlla bi la ko xaddir jëlee de bu doon ak fóoree jamono yi nga xam ne luñ xamul weddi ko ku doon wul lii dañuy indi ci yàlla kimtaan de ñooñu la yàlla di ñu ñu ne waaye xaluq dana mu bind maa laa tax na moom la ngeen xamul ci ay wëlli yu de bum la jaaxal naka la wëlli yi di jëlee xam-xam ca péeb yàlla ba directe wala ci ab malaaka ni ko yonent misaalal naa la xadr xam-xam bi ko yàlla jox gisuñ malaaka andil ko ko gisuñ kenn andil ko ko kooku yàlla ko xamal loolay misaalu wala yu di jëlee xam-xam ci péeb yàlla ba rek laa wax de wala yu jëlee xam-xam nag ci péeb yonent ci péeb malaaka wa mooy yonent yàlla mooy mariama jigéen la woon wala lii woon malaaka dikkal la ko daal ko xamal ko inna laa stafaaki wa taharaki wa stafaaki ala nisaa il alamina Zakariya ngi dundee waaye malaaka bi ñëwoon la dégg nga Mariama xamal ko maqaamaam ak tolluwaayam ci yàlla ak may ko yàlla may de nara may de xam-xam yooyu waaw ci yàlla la ko jëlee de mu sant ko muy julli waaw kooku ci malaaka ma la ak góor gi nga xam ne daf doon ziyaare ji te yàlla rek malaaka bi dajeeg moom ne ko yàlla bëgg na la waaw ni nga bëggee sa mbokk moomu waaw ngir yàlla de kooku mbëggeel ak yàlla ci moom ca malaaka ma la ko jëlee kon wali yi danañu jëlee xam-xam yàlla ba de xam ci malaaka yi rek laa wax de ñooñu nag la yàlla di ñu ne wax lu ko dana mu bind ci ay waliyu maanaam taala moo lu ngeen xamul jamono bii de ñooñu danañ feeñ ñun nag janoo nañ ci ñenn ci ñooñu walakin waaye nag waliyu xeyru mustaqilin beru de maanaam mënul génn yonantu wala xam-xam bu mën a jëlee ci yàlla wala mu jëlee ko ci malaaka boo ko dëppaleeg balaasu yonantu bi day dëppoog moom day dëppoog lu yonantu andi de waaye wala yu mënul andi mukk loo xam ne wute na ak njàngalam yonantu sallallahu alayhi wa sallam képp ku andi lu wuteeg njàngalam yonantu rek dafay nar jëlee wut ko ci yàlla ndax bu jóge woon ci yàlla wala ci malaaka ma dana dëppoog lu yonantu bi andi sallallahu alayhi wa moo tax mu ne xëyri mustaqilin berwut yakun day nekk taabian daa ji topp yonentu de falay si nekkul lil wali ñel waliyu an yaatiye moo ni bi hukmin jadidin caati bu bees innama yakun naka dana nekk taabian daa ji topp li nabi ñeel yonentu xam la ma bu ko njëkk waaye mën naa ni nag dégg-dégg bu bees ci biir njàngaleem yonentu comme ni nga xamee war waaye war waaye rek la waaye xarale yi indi nañ war waaye yu bees waaye indiwuñ bees de ndax war waaye yàgg na fi wëlli yi danañ indi dégg-dégg bu bees ci biir njàngaleem yonent waaye duñu indi àtte bu bees bu yonent andi wuddee walaakin waaye nag moom moom waliyu yaqusu dana jàppee meneen mahadin ladi ci mbell mi nga xam ne axasa jàppee mi ci moom annabi yonent bi wa meneen mahadin ak ci mbell aladi bi nga xam ne axasa jàppee mi ci moom almalaku malaaka aladi bi nga xam ne unzila wàccee na anzala wàccee na ala nabi ci yonent bi de ni yonent yi jëlee ci dégg nga péeb yàlla ba di jëlee ci malaaka yi la wali di jëlee ci péeb yàlla ba ak ci malaaka yi wala maa leen ba mu xamee par rasul yonent bi sallallahu alayhi wa anna fi ummati ne nekk na ci xeetam haadaal yi istaxna doyul naa leen xilaafati ci wutal de ba mu xamee ne am na ci xeetam ñoo xam ne ci yàlla la ñuy jëlee soxla wut xalifa fa qaala mu ne allah yàlla xalifati mooy sama kuutal ala kulli muslimin ci bépp julit waaw ndax am na julit ñoo xam ne xajuñ ci gannaaw kenn ndax ci yàlla la lawlaa annoo bu doon ak moom alima xam na an na min naa ne am na ci ñun man yaa xul kuy jël mene laay ci yàlla bilaa waas dañ ci dudu digale lama xaala kon du wax mukk allaahu yàlla xalifati mooy sama kuutal alaa kulli muslimin ci bépp julit ñooñu yàlla leen xamal seen xam-xam nag mën na laa mën na laa jaaxal fi ñu ko jëlee yàlla leen xamal de boo leen topp ndoore yi doo xam lañ xam ndax leer nga nekk ci ñoom nekkut ci yow waaw wa yaxluqu dana mu bind maa laa taalamuun ngeen xamut وشيء بعد فناء وجود ربي gannaaw jeex ak amat jaam bi wa baqara ak gis ak yàlla tabaraka ban wa taala kawe na yàlla dana bini mi loo min ci ay xam-xam wa mushahadaat la ngay janoo nga wax salaare ak yi mbóot laa yàlla moo du ko xam ila laa lu ma yàlla tabaraka ban wa taala kawe na wa yaxluqu ma la taala mën a mooy lan mooy dégg nga jaam bi bu jeexee tak yàlla rek def yàlla dana bind foofu ay xeeti xam-xam ak i janoo ak i mbóot yoo xam ne yàlla rek ko mën a xam nag laa wax de jagleel ko jaam boobu maa googu loolu dugg na ci biir maa ngi lu ne xañ na fi kon def li naa taa ci li ngeen xamut wa yaxluqu dana mu mbir maa laa ta'lamuuna lu ngeen xamut de waaw bal li fi nekk kese bu wedd nañ bi maa nga xam ne lam yuxiitu feeguñ beel mii ci xam-xamam yàlla neen am na ñoo xam ne luñ xamul nag weddi ko rek laa yàlla waxoon leen démb ne dana bind lu ngeen xamul loolu maa googu ñaari maa yi lu ne xaj na si haa maa nii ñaari mii mii yasaani danañ xaj danañ danañ yaatu lépp lu nekk maanaam lu nekk rek xaj na si ñaari mii lu ngeen xamul rek weddi ko lu ne mën na cee dugg kon jaam na def nank ci lu mu waaye lépp lu wuteeg woote bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wóor na ne wute naa woote yonentu wuteeg njàngalam yonentu loolu moom ay nar waaw waaye na na fekk nga am bu dajal mbir yonentu sallallahu alayhi wa sallam ba xam lii ci la bokkam bokkut ba amul poids boobu na nga def nànk ba tey <coughs> waala laay jëm na ci yàlla alaa gi la ni ko waxee woon ci laay mu ne hazaali siraatun yoon la mustaqim bu jub ala ya jëm ci man wala laa jënal ci yàlla xadru sabili yoon wu jub wa wa mina am na ci yoon ya jaayirun aji jeng haayidun aji jeng ani istiqaamate wari jub de yoon wu jub wa ci yàlla la jëm bépp yoon wu jub boo ko toppee rek mooy gën a ci yàlla am na yoon yu jeng nag yoon yooyu boo ko toppee du rek gën a ci yàlla de bal daf lay soril yàlla wala saabu soo woon yàlla hidaayatukum seen ak jub laa daakum kon kay mu gindi leen ajmaay na mboolem seen de bu leen yàlla bëggoon a jubal yéen ñëpp kon kon yéen ñëpp ngeen jub waaye loolu soobul yàlla de la ko soob mooy ñiy jub mu dugal leen aljanaan ñiy dëng mu dugal leen safara moo tax foo am ñu dëng waaw huwa alladi mooy buur bi nga xam ne anzala wàcce na mine samaay tukkee ca asamaan maa am ndox de ma ngay ñëwati ci jëfam ya ngir jàngal la waaw kattanam ak sañ-sañam ak man-manam bi nga xam ne kenn mënu ko yàlla mooy ki nga xam ne moo wàccee ca asamaan ndox ku man loolu kenn lakum ñeel na la minu ci ndox moomu saraabun ak am naan tasrabuunu ngeen ko naan rek laa de waaw minu waaw am na ci moom wa minu tukkee ci ndox moomu sajarun garab yan but dana sax de bi ndox ma si mooy ngeen sàmm seeni daaba fii ci ñax yooyu ak garab yooyu de yàlla leen wàcceel ndox ci ngeen di ci naan di ci dégg ndox moomu saxal gàncax ngeen di ci sàmm seeni daaba tarawna da ngeen tarawna da ngeen sàmm dawaabukum seen i daabare yun bisu dana saxal lakum ñeel leen bii ci ndox moomu azara gàncax muy mbay wa zaytuun ak garabi zaytuun meññal la bu am diw wala na xil ak garab bi tàndarma wala anaabi de wa min kulli samaraat rek ci bépp meññet meññet ne rek ndox ma saxal na ko rek laa wax de inna fi zalika almazkuri naka nekk na ci loolu ñu tudd laa yatan aji tegtere wéet de dalaalatan tegtere dalaalatan aji tegtere dalaa wax daane ci wéet ak li xaw mi ñeen nit ñi tafakkuroon yi xalaat de xoolal ndox mi nga xam ne yàlla wàccee na ko xeeti meññet ak gàncax yi nga xam ne saxal na ko waaw loolu ku ci xalaat da nga xam ne yàlla rek mooy borom kàttan mooy ki man keneen mënut xamal asamaan xamal ndox xamal suuf di ci saxal gàncax lu yàlla rek de yàlla mi man loolu gàncax gi nekk ci biir suuf mu génne ko meññal ma génn feeñ am façon meññal yu wuutee yu neex yu bëri yàlla mi man loolu kooku kenn la de wala nga ne yàlla mooy wàccee ndoxum asamaan mooy xam-xam yonent sallallahu alayhi dënn jullit ñi mu génne ay meññet mooy jikko yu rafet yu baax yu sell rek laa wax de yàlla mi génnee muy sotti ci xol yi xam-xami yonentu muy ndoxum asamaan mu meññi ay jikko yu rafet yu wutee yoo xam ne ñëpp danañ ci jar danañ ci jariñu ñun danañ jariñu ci jikko yooyu doomu aadama yi ñuy dund jariñu ci jikko yooyu ba mala yi sax danañ jariñu ndax ku rafet jikko la dafay rafet jikko ba ci am melentaan yàlla moomu kenn la rek laa wax de gis nga ndox mi ba mu wàccee lam saxal ci gàncax kenn xamu ko te bi yonent bu ñëwee ci xol la muy feeñal ci xam-xam kooku xam feeñ ci moom rek moo ko mën a xam de suuf su nekk ak la sax waaye xol bu nekk ak meññeeti xam-xam ya fay feeñ de nañ nangulante rek waaye xam-xam yi du benn wa saxara tàggat na la kum ñee leen a lay la guddi wan nahaar ak bëccëg wa samsu ak jant wal xamar ak weer de wan nujuuma ak biddiw yi musaxaraatin luñ tàggat bi am di coobare yàlla de bi raadi di coobare yàlla inna fi zaalika naka nekk na ci la ayaatin ay kawteef yu tegtale wéy dëgg yàlla le xaw mi ñeen nit yaqiloon yu xelu de ay dabaroon yu setantal yàlla moo indi guddi ak bëccëg indi jant indi weer indi biddiw yu yàlla tàggat ci mbiram de képp kuy xalam rek dana xam ne ki def lii kooku mooy ki bind mooy ki man lépp moom rek la ñu war topp mooy ki xam de guddi ba mu amee gisoo ker gisoo dara te lépp nga fa bam demee ba soob yàlla dafa indi bëccëg rek nga jëloog lépp mu mel ni lu xees naka noonu ba yàlla di nekk moom dong gisoo woon dara ba mu demee ba soob yàlla mu tëjëli génn yonent bi sallallahu alayhi wa lépp feeñ di lemmee rek laa wax de ni muy demee rek muy gën di leer bëccëg suba teel na wala fajar leer na waaye digg bëccëg a gën a leer de waaw takkusaan dafa yore melo digg bëccëg ak melo fajar boore sedd waaw leer loolu ñay xalam danañ ci jàngee lu bëri rek laa wax de yàlla tàggat jant bi ngir lan ngir lam bëgg mu feeñ te nëbboon ci guddi gi mën a feeñ tàggat weer wi muy leeral ci guddi gi tàggat biddiw feeñ ci asamaan asamaan si dafa am yi biddiw yoo xam ne mën naa lëndëm ba benn biddiw du feeñ fekk ma fa nga xool rek biddiw ya génn weer wi feeñ ba nga mën a tegtalu dara ci biir guddi googu mu jàngal la am ak yàlla gi ma amoon njëkk dara melaw feeñut tur feeñut dem ba mu ko mu feeñee la ki melawam ak i turam génne wax daal yetoom nga tegtaloo wéet yàlla ci jamono jooju ci wéet googu de biddiw junjum calkuru yeeg melo yi nekk ci biir asamaan yàlla mi def loolu ku koy kenn de du ma gën a leeral nag wa sax tara tàgg na lakum ñeel la masara bind na ko xalaqa bind na lakum ñeel fi ari suuf yi min xayawaani ci ay jur wa nabaata dancax wa xayri daalik ak yur yooyu muxtalifan bi wutee alwaanu seeni melo de jur yi yàlla bind ak gàncax yi ñu amee melo yu wutee kaamar ni ki yu xonq wa asfar ak yu zone wa axdar yu wert de te yooyu yëpp ci benn suuf lañ jóge benn ndox moo leen roose yàlla moomu mën naa wàccee ci xam-xam yi yonantu ak ci dënnu ak ay xam-xam yu wutee rek laa wax de lool yàlla moomu génnee ci diggante asamaan ak suuf gàncax yu naq deeg yu wee yu yu bon fekk lépp ñoo bokk cosaan yàlla moomu mën naa génnee ci diggante nu wóotug wilaayatu ay nit ñu baax yu ñu bon inna fi zalika nekk nekk ci loolu laay seen kawteef li xaw mi ñeel nit yezakkaroon yi fàttali ko rek laa wax de yettaan yi ñeewaaru huwa alladi mooy buur bi nga xam ne saqara tàggat na albaara géej zalla lahu tàggat na ko lirkuu bi ngir ñu war ko wal xaw si ak xuus fii ci moom bu yàlla tàggat doon géej ku dugg ci géej rek daal nuur waaye def na ca gaal ni mu yow booy taxaw rek nuur gaal ga mën a daw ci géej gi rek loolu kat nag yàlla moo ko tàggatee noonu ñu mën cee xuus napp ci ay jën génne ji wurus génne ci lu ne rek de di taakuloo ni ngeen lekk mbiru ci géej ga laa man yàpp tariyan mbiru nga ji tooy woowu moom asama ku mooy jën yàlla tuddee na ko yàpp bu tooy ngir nga xam ne nga lekk jën ci ba muy tooy moo gën ba muy wow ay keccax ak yi nangam yooyu man naa joxe feebar yàlla daf ne yàpp la wu tooy ngir nga jàngee ne jën wu tooy moo gën wu wowoo bu demee ba wow rek mën naa joxe jàngoro moo tax mu melale ko aji tooy de kon keccax yeeg jën yooyu ñu lakk daala ah, waxuma baaxut gaa waaye mën naa joxe jàngoro de wota sax yoo ngeen génne ci moom ñu dee tan takkaay yooyu da ngeen ko sol yee moom a luulu mooy wursu luulu wal marjaan ak wursu marjaan ngeen dugg ci biir géej ga xuus génne ci wursu luulu génne ci wurum waaw marjaan de yàlla mi leen defal loolu kooku rek moo jara jaamu de naka noonu ngeen duggee ci géej wilaayatu ak nu wuutu de kenn ci ay meññet waa ak i jikko yu rafet yoo xam ne nii waaw da ngeen ko jikkoo da ngeen ko meloo de yàlla mi leen defal géej yooyu yàlla moom rek ngeen war a jaamu de asama ku jën sama tudd na ko laawela tabaraka ba nii wa taala kawe na lax man muy yàpp di taala la nga xam andoo ne moom xëy na moxtaajin soxlawul ila zabi jëm ci rendi de jën soxlawul rendi a taxawru lu laab la moom géej maa woo ndoxam lu aji dagan la may titoo méddam bu méddee dagan na lépp loo xam ne rabi géej la daal boo ko rendee ak boo renduut moo ci yem bu méddee deyal boom ak buy dund yëpp dagan na nga lekk fale moo tax àlla dagan na moom jënde sawaawul moo xam kaa nekk na xay yéen daa ji dund aw maytan wala aji médd ba nga ko jàppee fekk mu ngi dund wala médd na moo ci yem mën nga koo lekk jariñoo ko dagan na wosofo melalla ko bi tariyel jaji toy di talama ngi nga xam ana kala lahmi na lek yapu atari ibaji toy abdul mo gel mira kala lahmi ci lek yapu jeun ala yabi ci baji wore yapu jeun wu toy mo gel yapu jeun wo yalla mënon na wax rek ngeen lek ci yap su ba nga xamne mu toy ak mu wo yeb baxna waye dem ko melalene o mu aji toy loolu nag lay xiirneel booy lekk jën lekk ko ca ba muy tooy rek laa wax de asama ku jën aliyaa bi si baaji wow rubuma yurisu mën naa doon loo daan jàngoro de jën wow mën naa ni jàngoro boo xoolee sa jën yu wow yi nañuy salte ak nañuy mel buñ la waxee mën naa ni jàngoro doo ko wet ndax daanaka dañuy am na ci yoo xam nañ koy nëbal ba mu nëb ñu def ko géejee nangam ma nga forox xesaw kenn xamul daal nu mën a mel yooyu ah waxuma bëggoon jigéen ñi togg daal waaye buñ ko mënee moytu moo gën de nañ lekk jën wu tooy wa xaala wax na sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yàlla doole tool te mu ko nekk lu lekk sama asamaka jën fay noonu moom yusi bu day yóbbu bi laxasari ci añaan yonent ne dana lekk ndax kuy lekk jën kooku du añaan jën day yóbbu kañaan de jën day tax doo añaan wata sax yoo ngeen génne mi ni ci moom si géej géej de tan takkaay talbasuna yooyu da ngeen ko sol yàlla ne da ngeen genné ci géej gi ay takay moy wursu ngeen sol li azali motax ikhtalafu tena Malik wa shafi ali yitu takay alati di nga xam ne tulbus danañ ko sol alulu moy wursu lulu wal marjan wursu marjan fari azali li aba da tax lako shafi imam shafi li yàlla ñel góor ñi shafi ne góor man na takk wurus ndax yàlla ñaaxee nañu ko le bo bo boole na ko ci xéwal yim ñu jox ne ma len jox ay xéwal bokk na ci takkaay yi ngeen di génnee ci géej gi ngeen di ko sol comme loolu lay yàlla wax nag dégg nga talbasuuna la wax talbasuuna moom damiru góor la wata saxri joo it góor la dégg nga bu doon jigéen te saxri na rek de ak talbas na la ñuy wax waaye góor moom moom te saxri joo ak talbasu kon yàlla def na yéen góor ñi yéenay génne wurus yi di ko sol kon kay góor mën naa sol wurus rek laa wax de caafi ne góor mën naa takk wurus lenn laa ndax yàlla mën na ñaaxee naa alayaa ci moom bi ci wurus alay naa ci ñun bi ci wurus yooyu de wallaahu yàlla laa yemunu du ñaaxee alay naa ci ñun bi seen dara xaraameen loo xaraam rek laa wax de kon ci ngiram saa fii góor mën naa takk wurus wa qaala wax na Maalik ne na lubsa nisaa yi na ko sol jigéen ñi na ko jigéen ñi yette mattaw dana xewlu biyaa ci moom arijaalu góor ñi de ka annoo dafa mel moom lu suum mooy solo góor ñi moo tax man na ñaaxee na allah yàlla ala rijaali ci góor ñi wala lam ci dama ni saaw mooy jigéen ñi Malik ne sa jabar bu solee wurus mu mel ni yaa ko sol ndax yaa ci yaa ci bànneex taar bi daal daanaka sa taar la de loola waral yàlla ne yéen góor ñi a ngi sol wurus fekk jigéen ñi la ci namu ndax lu sa jabar sol mu ngi mel ne yaa ko sol de waaye daal hadis daal ay góor te sol wurus kon nag jàpp mu ngi gën a Maalik mooy gën a dëgër ndax alxuraan yi nu mu koy leeral kon li Maalik wax noonu rek la de jigéen moo ma a sol wurus waaw ndax bu ko solee mu ngi mel ni jëkkëram a ko sol ndax sa taaru jabar sa taar la waaye góor du sol wurus de. ba nga xamee nag taaru soxna taaru jëkkër la moo tax yàlla ne yéen a ngi génne wurus yoo xam ne ngeen ko sol maanaam seen jabar yi danañ ko sol mu mel ni yéen ko sol de watara da nga gis alfulka gaal ya sufunu gaal ya ma yi ñuy fii ca ndox ma ay ngay xotti ndox ma ma namu te su xoo ñu ngi benn ngaraw benn ngaraw mooy yóbbu gaal di dem yii di dikk gaal yu bëri ak bato yu bëri nekk ci biir géej gi di xotti ndox mi jëm ci barab ñu war a jëm naka noonu it waaw géeju nu wóotu ak wilaayatu soo demee si nu wóotu fekk fa yonante ya ñu ngay xotti nu wóotu di wëy ci péeb yàlla ba de waaw dégg nga di yóbbaale ci wilaayatu ay nit di leen sànni ci géej wilaayatu boo demee ci géej wilaayatu fekk fa ay waliyu ña ngay xotti wilaaya di daw ci péeb yàlla bi waaw ay dégëri yu sore sore rek laa wax de dee yóbbaale doomu aadama yi ñoom ñëpp benn kattan moo leen di dawal wala benn tëbb moo leen di dawal bu dee nubuutu mooy kattan ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee wilaayatu kattan ak laa wax de ci la way tab taxoo ngeen sàkku min fadli ji ngëneelam bi tijaar bi ci commerce wala la ko mboo yéen tashkuroo la ngeen sant yàlla rek laa wax de yéen ngi sàkku ci ngëneelu yàlla ci dugg ngeen dugg ci gaal yi di dégg nga tukki da ngeen ci commerce da ngeen ci am xéwal yu ne yàlla ren defal loolu ngi ngeen sant ko de waa ñooy daw nag ci ngay sàkku waaw xam-xami yàlla ki maarifaam ak i mbootamay leeram de yooyu yëpp yàlla ren ko defal yu zaahir yu baatin ndax ngeen mën a sant yàlla de wa alqaa sànna fil ardi si suuf rawaasiya ay doj jibaalan ay doj sawaabita yu sax an tamit ngir bu jeng bi ci yéen wa def fiyaa ci moom anhaaran ay sewde ke niiri comme dex wa subulan ak yoon turuqan yoon la'allakum boo yéen taxtaduna ngeen gindeeku ilaa maqaasidikum seen jubluwaay de wa alaamaatin ak ay mandarga ni ki doj tastadiroon da ngeen tegtalu biyaa ci moom ala turuki ci yoon yi kal jibaari bi nahaari ci bëccëg yi wa bi nañ mi ci biddiw moom ñoom yaxtaduuna deneen gindeeku ila turuki jëm ci yoon yi war xiblata ak xibla bi léeri ci guddi gi de yàllaa leen defal ci suuf si ay doj yu dëgër ndax suuf ci kaw ndox la lalu bu du rek mu jeng kenn du mën dox ci kaw suuf ndax ndox ma da def cee nuur mu defal leen ay sewle ngeen di ci naan de defal leen ay yoon ngir ngeen mën a gindeeku defal leen ay mandarga mooy doj yi ngeen xamee dégg nga àll yi bu dee guddi mu defal leen ay biddiw yu ngeen gindeekoo de yàlla mi leen defal loolu kooku rek mooy loo jaamu wala nga ne yàlla leen sànni ci wilaayatu suuf si wilaayatu ay doj mu di waliyu wali ñooy doj yi ñoo tax wilaayatu sax de ndax wilaayatu ci kaw nubuwatu rek la lalu bu doon ak wali yi yi nga xam ne ñooy fonk yi ko téye mu daal di seey waaye wali yu mat yooyu ñooy doji de mu defal leen ay ndoxi xam yàlla ngeen di ko naan defal leen ay tariqa ngeen mën cee jaar ba xegg ci dëgg-dëgg wilaayatu de ñooñu nag mooy wëli yooyu ñooy doj yi nga xam ne ñoo leen wan li yàlla bëgg ak li ñoo leen xeggale seen borom de waaw bu dee ci péeb yàlla la nag melo yàlla yeeg turu yàlla yi ñoo leen di tegtal borom bi rek laa ñoo di biddiw yi afa man yaxluqu ndax kuy bind woo moom allah mooy yàlla kaman laa yaxluqu mel na ne koo xam ne du bind de woo moom alasnaam mooy bilam dilam xelam yi ay tushrikuuna ngeen koy bokkaale maa waan ak moom fi la baade ci jaamu gi de afala tazakkaruuna mën a du ngeen fàttali ko azali fa tuuminuuna ngeen gëm kii bind ndax mel na ku bindut yàlla mooy bind xelam bindut kon lu ngeen jaamu xelam de te binduñ dara ndax du ngeen xalaat lii daal di gëm de wéyn taxut du dem konte ngeen neemate laay xéwal yàlla yu feeñ yeeg yu na yi laa tax suwaa du ngeen ko mën a takk laa tax bituwaa du ngeen ko takk de fatlal waxatuma sax xanaan tuti xoo ngeen attan sukura sant ko xéwal yàlla bu ngeen ko doon konte mun leen ko jeexal de mun leen ko sant <clears throat> inna laa naka yàlla la xafurun aji baale la rahimun aji yërëm lay jaamam de xëy si yéen amul ndax mooy xéwalal aleykum ci yéen maa taqsirukum ànd ak seen ak gàttalilu waaye si ànd ko ak seen i mooy jamono bu nekk yéen a ngi moo yàlla yéen a ngi sàggan yàlla a leen xéwalal kon yàlla ku bëri njëgal la de waaye ku bëri yéen maa ci yéen. wallaahu yàlla yàlla mu dana mu xam maa tusiroona la ngeen mbootal ba maa tooñ loona ak la ngeen feeñal de li nëbbu ak li ngeen feeñal lépp yàlla xam na ko. wala dina la nga xam ne te doona da ko jaamu ay taamu doona da ngeen ko jaamu min duuni laahi ci dul yàlla woowum ñoom alasnaamu mooy xeem yi laa yaxluquuna duñ bind shay'an dara woowum te ñoom sax yuxlaquuna ñuñ nataal lañ rek de dañ leen a desee rek sa waroon dañ leen melal mel ni jaarete ci xeer wa xayra ak lu loolu ay yàlla lañ xam ngeen ne loolu du dëgg de xelam ngeen di jaamu binduñ dara te ñoom dañ leen a nataal rek defar leen xett leen ci ay doj ne ay yàlla lañ xam ngeen ne yàlla kenn du ko nataal de kenn du ko defar waaye moom mooy bind lépp amwaatun way dee lañ laa ruuxa di daw fiim di nekk ñoom xëy na yaay nekk way dund de tàkki dund woo kooku feddali la bu maa yesroona yëguñ sax ay raslaama xërëm yi ay yaana yu kañ lañ dekkil xërëm yooyu amuñu roxo yëguñ dara dunduñ te bis bu dekkil jaam ñoom duñ ko yëg kooku kooku nga ne kenn koo jaamu de ki ngay jaamu mooy koo xam ne booy dee mu yëg ko loo nekk dana ko yëg buñ lay dekkil mu yëg ko ndax man laa xettali waaye koo xam ne nii li nga nekk xamul ca dara lu dee la booy dekki du ko yëg ba mën laa dimbale waaw koo kooku wellu wun jaamu ko de loolu jaame yàlla rek la kenn waru koo jaamu ilaahukum seen yàlla al mustaxiq aji yelloo li la jaamu kan la ilaahun yàlla la waaye duñ koy kenn de laa nazir di rek ngànd loo di ko ñeel fi zaati si jëmmam wala fi sifaati du woo moom allah mooy yàlla de yàlla kenn la amul morom ci jëmmam amul merom morom ci melom moom rek la ñu war a jaamu de fa la ñi nga xam ne laa yuminuuna duñ dëggal bi laa tali ci àllaaxira xulubum xol seen mun fi yetun aji wedd la jaay dinu aji wedd lil wax daani ti ñeel wéeteg yàlla ga de ñi gëmul àllaaxira dañuy wedd yàlla woom ñoom mustakbiroon wéy réeru lañ ci topp yàlla de te yàlla leen bind may leen lépp lu nekk ci ñoom laa jarama dëgg xaqan dëgg am na laa naka yàlla yàlla mu dana mu xam maay suroon lañ nëbbu bu maa yoon lu nag la ñuy feeñal de innoo naka yàlla laa yuhibbu du yool al mustakbirina way réeru yi de ñu réeru yàlla bëggul leen mooy du leen jox tiyaaba balli li fi nekk yu aqibum dana mu mbugal leen al mustakbiruna nag hum ñoom al kufaaru ñu xeefeer yi xeefeer yi ñooy mustakbiruna al kibru ak takabur ak istikbaar du benn istikbaar moom du nekk dëgg mukk mooy ku yëkkati boppam ci kaw place bu ko yàlla teg fa la yàlla teg nga teg sa bopp fu ko ëpp kooku mustakbir la ak kibroog takabur moom mën naa nekk dëgg mën naa bañ a nekk dëgg mutakabbir mooy koo xam ne bu dajee ku bew dafay yëkkati boppam ci kawam teg boppam fi ko yàlla teg ndax yonentu nee na ku rëy rëylu ci kaw ku rëylu kooku sarax la jaamu yàlla la boo dajee koo xam ne mu sa suuf te saa su nekk mu ngi yëkkati boppam sa kaw di mbër loo ko rëylu won ko ne ko duma sa morom de rëylu ci kawam rëylu googu takabur lañ koy tuddee kooku xaraamut luñ santaane la ndax képp kuy rëylu rek dañ koo war a wàcce si suuf istikbaar nag mooy nga yëkkati sa bopp sa fu kawee sa maqaama de tawaadoo nag wàccee sa bopp mooy nga bañ teg sa bopp fa yàlla teg yàlla teg na la fu kawe waaye nga nëbbu ko suufeel sa bopp ba mel ni goo foofu kooku tawaadoo la def ko ngir yàlla ak santee yàlla de loolu ku ko def yàlla yëkkati la al mutakabiru aji reylu mooy ku gis nafsu bu xom kabiran mu aji rëy ala ci kaw keneen bi xaqin mën naa nekk ci dégg aw bi kasibin mën naa nekk ci nar jullit dafay rëy lu ci kaw kéeféer waaye du toroxal boppam mukk ci kaw noonu bi yàlla de loola borom xam-xam yi daan borom xam yi mu ngeen dem ci mbooloo réyal leen seen de ndax bañ ñu xeeb leen nitu àddina dafa mën a xeebe comme que àddina rek lañ gëm yéen di réyal leen seen bopp ba bu len wacce sen bop ci karam ko xamne ne rek la yëkkatee boppam bu du woon loolu ma borom xam-xam yi dara ci àddina re waye bañ ko len xew rek motax lañ ci soxla ka new ñu soxla ko ca ndax bu len xewé xeeb sen xam-xam de te bu xewé sen xam-xam rek dal di futi dal di alku takabur fofu bur lu baax la naka noonu yàlla léeg-léegi mu feeñal ay nit yu dugg ci géewi xam-xam rëy lool foo leen fekk ñu naan ñoo fi man ñoo fi raw ñooñu boo dajee ñoom bul wàcce sa bopp bul suufee yëkkatil ba ca kaw teg leen ñoom seen place loolu takk buur la de waaye du naw sa bopp du yëg sa bopp waaye takk buur ci kaw kuy réeru réeru la boo deful loolu rek ñoom danañ wayewu danañ mbëru danañ bàkku te nit ñi xamuñ lu mooy kuy bàkku ñu yaakaar ne mbir mi ci ñooñu la nekk daal di leen topp daal di xal ku ne su boobaa boo dajee ak ñooñu rëylul ku dajee ku rëy daal na nga rëy abu dujaanatu xare oxot daf doon dox di tiitaru di bàkku yonent ne ko dox bu yàlla bañ a ngi lu mooy ci barab yi mel nii moom yàlla bëgg na ko ci de loolu mooy takkabur kon takkabur baax na waaye istikbaar moo bon istikbaar nag mooy teg sa bopp foo yeggut amal kibru waaye rëy mook takabur farubama kaana mën naa nekk bi àqin dëgg wa bi xëyri àqin dëgg de wa istikbaar waaye nag istikbaar mooy rëy rëylu fa takaburu dégg nga mooy rëylu bi seen ci mbir kasi bi boo xamee nar la de ba istikbaar fii laa toll tolloo fa loolu istikbaar nii laa mel meloo ko istikbaar lii laa am xamoo ko loola istikbaar ku mel noonu nag bu wàccee sa bopp ci kanam ba mukk kanam ba mukk ndax kooku dafay diiranteeg mbagg yàlla te kuy diiranteeg mbagg yàlla rek wàcce ko ci suuf loolu da ko bàyyi xel léeg-léegi da ko am yar lool waaye am na foo xam ne laajul yar rëy rëy lu la laaj am na jotaay yoo xam ne waxal yaay kan boo dajee ku rëy ci fànn mu ngay ma ngay eh, dégg nga réeréelu di ci wàllu xalal ne ko boo ñëwee ma li nga nga yore asaka lay tolloog sama xalal ji xam nga yaa ngi réy waaye baax na kuy réeréelu ne mooy xut bu zaman xamu dara ko boo ñëwee ma jàngal la ñaar fukki at doo ma jot de fekk wax ko dëgg xam nga yaa ngi réylu waaye réylu googu lu baax la rek laa wax de al istikbar réyréelu moom laa yekkoon du nekk xaqan lama kaana ba mu nekkee alkibru rëy suma maa kaana mën naa nekk bi xaqin ci dëgg aw bi xëy xaqin wala ci lu dul dëgg dégg moo tax hadis bi ne alkibru rëy alal mutakabiri ci aji réeréeru sadaqatun sarax la wàccee sa bopp ca palaasam ida qaala al xilmu fa lil xilmu mawdiun bu ñu waxee lewet lewet dafa am barab rëylu ci kaw kuy rëylu yonent nee na loolu sarax la rek dégg nga bu dee texe ñeel na ko wàccee boppam ci lu dul toroxtaane foo xam ne boo wàccee ñu toroxal la bul fa wàcc am na ñoo xam ne boo wàccee sa bopp wàccee ko fi la yàlla teg ñoom toroxtaane lañ koy jàppe dañ lay xeeb far la suufee ñu tegal sa bopp fi la yàlla teg ngir ñu mën a xam yaay kan maanaam ngir ñu mën a teg lu nekk fi ko yàlla teg waree sa bopp waaye da nga war a wane ne lu nekk rek fa ko yàlla teg lañ ko war a teg kon bu dee boo wàccee sa bopp muy toroxtaane bul wàccee sa bopp bu dee ñoddil rek mu jëm kaw ma ne yéegalal ma xaamam bi rek waaye nag bu ko yéegal ba fa way gudd nag mais nag kawe de waaye foo fekk ku hmm. te fekk mu sa suuf tegal sa bopp ci kawam won ku ne ko dese de kooku li muy jariñ mooy teg lu nekk fi ko yàlla teg waaye foo xam ne boo fa suufee sa bopp wàcceel fa sa bopp du benn turaxtaane foofu lay yoon mooy nga suufee sa bopp soo ko yàlla yëkkati la réylu ci kaw kuy réylu sarax la adal kibru réy ji xaqun dëgg la amal istikbaar waaye réy réylu nag falaa yakun du nekk illaa baatinan lu mooy neen rëy rëy lu moom nar rek la mën a doon fariha daali moo tax zakara tudd na moom yàlla am na ne moom laa yuhibbu du yool mukk al mustakbirina way rëylu de way rëylu ñi ñëy rëy moom yàlla du leen fay waaye waxul al mutakabirina wal kibru rëy man yaraa mooy ku gis nafsu boppam azama mu gën a màgg min xëyri ci keneen loolu mooy al kibru de nga gis ne yaa gën a màgg keneen kooku kibru la man takabara ku réylu rek wa dama mu wàcce ko allah yàlla réylu gu dul dëgg boo ko defee rek yàlla wàcce la de waaye wàcce boppam goo xam ne du ko jural toroxtaale kooku yàlla dana ko yëkkati de mu ne ku wàcce boppam ngir yàlla yàlla yëkkati la ku yëkkati boppam nag yàlla wàcce ko ba mu bokk ci ñu gën a suufe allahu yàlla yaxsuru dana mu pang almutakabirina way réeru ñu yowmal qiyaamati gërëm ci am saala zarri ñu mel ni ay sanqalañ noonu la ñuy tuutee tatuwu mu leen dëgg anaas nit ñi bàq daa seen dëggu ya gisaa fay li kibirim ñeel seen rëylu ko ñu yëkkati seen bopp ci kaw nit ñi ci lu dul dëgg bu yowmal xiyaamatee yàlla daf leen tuutil bañ mel ni sanqalañ ñëpp di leen dëgg ngir toroxal leen de wan leen ne leen yàlla dana leen dekkil ñuy nit yoo xam ne dañuy yore meloo sànqalañ nit ñi di leen dëgg seen tànk ya ñu ne ñu ñooy ñan ñu ne ñu ñooy ñu doon réylulee ci àdduna noonu la leen yàlla de dekkilee yawmal qiyaamati kon réyloo ngoogu lu bon la rek laa wax de lu mooy réy goo xam ne da nga ci wane teraanga ak lislaam te mooy nga nga wane ci ne yàlla rek waaw moo war a réylu mooy ki màgg de wala boog nga wàccee ci ku yëkkati boom foo xam ne nii eggul fa wala boog waaw kala bëgg a toroxal toroxal ga dana toroxalaale lislaam nga yëkkati sa bopp ba mu xam yaay kan de ku la bëgg a suufeel yëngatul ba mu xam ne suufeew bu fekkee suufeel googu dana la toroxal wala dana wàccee dara daal ci santaane lislaam yi ndax yàlla jaami torox